réew dafay torn à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll Abdelkader Boy Mamadou Diouf bu Colombia Felwine bu DUC François Joseph Cabral Abdou Aziz Diouf Sidi Alpha Alaaji Samba Ndiaye ak Babacar Niang ñoom ñoo bind lettre bi tudde kon nduxum ci dugg ci démocratie Sénégal ñu ni ñaari mandat président Macky Sall delloo na Sénégal bu baax a baax ci wàllu démocratie ak ponk ya nga xam ni moom lañ koy xoole amul coup d'état ci Mali ca Burkina Faso ca Niger wala ca Guinée waaye lépp luy dëgëral nii dañ koy jaarale ci droit te ñëpp xam ne du nii ñu ne ñaari mandat yi président Macky def ci nguuru Sénégal tëj na ci gémmiñu politiciens yi ak mouvement société civile yi yi nga xam ne duñu wax la ko arrangé ñaari mu teg loo xam ne attanuñu ko wala mu dugal ci kaso bi wala mu tàpp leen ci poste yi nekkoon wala ñuy dem élection présidentielle muy seet ka cay ak ku ci dul bokk te ñoom nee na yemul foofu ndax magistrature bi dañ koy am ay samba booy yu ñuy jox ay ngànnaay ñuy régler ordre public ci wetu force de défense de sécurité yi ak arrestation yu jéggi dayo ba mel ni rafle ku wax ñu jàpp buntu parti politique yi ñuy tëj Ousmane Sonko miñ ne dañ koo assigné woon résidence te amul benn kayit bu ci joxe ndigal internet biñ daggoon ak yenn média yi daggoon seen signal yooyu yëpp la dajale ni Sénégal a ngi dellu ginnaaw waaye yemu ci ndax nee nañu parti Pastef bi ñu tas benn la ci mandargay réew moo xamante ne lu neex njiit la doxee mu ànd ceeg magistrat yoo xam ne ñoo ko ciy jàppale ngir ñu fexe langu politique koo xamante ne nii ñuy ñoom ñi bind lettre bi nee nañ xanaa ñu wëlbati ko waat ci askan wi ndax moom rek moo ko mën a teggi teg fi leneen loo xamante ne république lay jiital ci kanam ñu yaakaar ni peuple boobu di askanu Sénégal ni président Macky Sall fayee démocratie ci ak ayam ba mel ni ak nit dina ko mën a jafalaat ba mu booy diw. jërë jëf mbokk internet mu ngi noonu ngeen doon déglu noonu nekk ki nga xamante moo di Macoumba Beye nekk foofu si groupe Futurs Médias RFM Euh, déglu ngeen kàddu yi nga xamante ni moom la yëkkati par rapport ak Macky Sall depuis mu nekk si boppu réew mi ak léegi liñ fi doxalee rawat na nag li nga xamante moom la ñuy wax démocratie ñu wax si leneen li xamante ni moo di Guy Marius Sagna moom moomee nag di woote li nga xamante ni mooy ay benn manifestation pacifique boo xamante ni war nañ koo amal samedi le 19 août 2023 fépp foo xamante ni si Sénégal la si région yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir Sénégal moom moomee nag di Guy Marius Sagna nekk doom ndey ci ki nga xamante moo di Ousmane Sonko waaye doom ndey tamit ci ki nga xamante ni moo di sénégalais yëpp ndax nag sénégalais bu am jafe-jafe bu ne Guy Marius Sagna dana la taxaw kon moom moomee nag nga xamante ni doon nañ def li nga xamante moo di conférence de presse tey waa FRAPP doon def conférence de presse tey si conférence de presse boobu la doon wax ne nag maanaam li nga xamante ni mooy samedi kon war nañu amal benn manifestation pacifique boo xamante ni fépp lañ koy amalee fi nga xamante moo di ci biir réew mi ñaawlu doxalin bi nga xamante président Macky Sall mu ngi koy doxalee jamono ji nga xamante moom lañ toogu tembe